fu Sénégal di dem. mi ngook Léopold Tamba réew mi saf na sàpp politique jamono ji li koy firndeel appel remobilisation bu mouvance présidentielle ak njiit la président Macky Sall ca wet gi itam opposition bi gis nañu ne ñu ngi def ay tournée politique ak i euh, meeting daf ñuy rek may ñu def euh, ab laaj ci ne atum 2024 bi ñu seene amal élection présidentielle 2024 yi ndaxam euh, campagne bi dafa door jamono ji ci jamono ji nga xam ne sax nag réew mi am na yeneen nekk poñ yi nga xam ne am na solo loolu ñu war a mën a waxtaanee bokk na ci campagne euh, lu jëm ci wàllug njaayum gerte gi ba ci sax jafe-jafe gi ñuy nemmeeku ci dundu gu mett gi ba pour Cour des comptes dafa mel ni nit ñi fàtte nañu ko dañu ci ànd ak Fatmata Diop Thial Sommes-nous en campagne électorale? La preuve, on sortie tout azimut de nos leaders politiques, des tournées, meetings, voyages entre un Khalifa Ababacar Sall qui lance sa tournée Dox Mbokk, Sonko avec son Nemmeeku Tour, Bougane qui vient nous parler de mi ngoog ñuy jéggalu ci euh, boobu léman dikkee ñu ci kàllaamay euh, nasaraan waaye mënees na koo commenté Hadj Mansour réew mi toll ni ni ma ko waxee léegi jax na lool ci wàllug euh, politique donte élection présidentielle yi 2024 la daanaka des na at waaye foo tourné campagne ak am tourné ngay gis ba tax ñiy politique ñëpp fàtte nañu dund askan wi carburant bi yokk na fi nguur def ay dogal yu amul concertation ci wàllu transport bi nëbbu ñoom seen incompétence wane càggante ñi nekk ci secteur transport waxuñu wàllu agriculture te ku ne xam nga ni ren Sénégal dina am jafe-jafe ci wàllu semence waxuñu ci wàllu élevage dund gu cher gi waxuñu dund gi ñu annoncé woon dañ koy wàññi te dara wàññiku ci lépp cher ci marché bi béykat yaa ngi bay war a récolter du ñu leen waajal euh, aussi fu ñu mën a euh, denc seeni ay récolte muy jafe-jafe goo xam ne Sénégal yi ñoo war a taxaw xoolaat politiciens yi teggi seen tànk teggi nañu leen di toppee parce que mot pour cent mais tey dañoo ngalab Sénégal détournement yi sakkan te kenn waxu ci rapport Cour des comptes waxi sànq fàtte nañu ko wàllu santé bi mu ngi sooxe ak yeneen ak yeneen daanaka secteur xoolal wàllu pêche bi nappkat yi am na ñuy disparaître jéemuñu ci benn pexe ji géej gi am jën amuñ ci benn pexe mais fépp foo dem mu ngi metti tey gars yi continuer ci wàllu politique ak seen ay campagne yoo xam ne xemem teef gi mais gars yi li ñuy calculer ci wàllu politique bu ñu bëggee sàkkal nit pexe calculer bu ñu ko def ci wàllu développement Sénégal fi mu nekk malheureusement. <laughs> mi ngi noonu Léopold Tamba mu doon ak jafe-jafe tam ñu 2024 waaye fi mu nekk nii réew mi saf na sàpp politique. mais looloo ma ci jaaxal parce que la plus du temps dañoo jàpp ne que dañoo tout le temps nekk ci campagne électorale déjà ñu ngi 2022 ñu ngi nii di nekk ci campagne électorale le président quitte le palais pour dem defi tamit campagne électorale ñeneen ak ñeneen donc ça veut dire que même le pays parce que lii nga xam ne ne dañ ko war a def ku ci nekk nga sa liggéey liggéeykaay parce que ñun ñii temps ñun ñii xam nga dañooy xëy walla ñu gont mais soo ñëwee da ngay toog nga def sa liggéey ba mu mat sëkk mais boo wàccee sa liggéey nga wàcc nga naan ngay dem kañ yi tooñ nga ko warut a tooñ tooñ nga réew mi donc ñoom ñëpp fi nekk nii nga xam ne campagne perpétuelle ça veut dire ne c'est comme si c'est un jeu d'enfant ay magum jëmm yoo xam ne ne c'est vrai ne que c'est le président de la République c'est vrai Sonko tamit ainsi de suite mais ngir yàlla nañ ñu nañ ñu nañ ñu mbéy tuuti nit ñi réew mi ànd ak dal parce que campagne yi ñuy def n'est rien d'autre que sinon pour essayer rek avoir le maximum de personnes mais un pays boo xam ne dafa nekk en perpétuelle campagne électorale mais pays boobu du meññ parce que li leen soxal mooy seen intérêt personnel à ce que ñu dem toog au palais pour mun a diriger parce que ce sont des gens yoo xam ne qui sont assoiffés et un peu de pouvoir ah là ça je le dis en réalité parce que leur comportement ne pas avec nos traditions. D'accord. Léopold Tamba maa ngi koy wax ci tàmbale ko xibaar yi sommet Dakar 2 daan koy door ni ki tey ci suba ca Saad lu toll ci fukk ak juróom ci ay chef d'État teewee nañu ko juróom-ñaar fukk ci ay membre gouvernement daan nañuy teew kon ci boobu lekk sommet yeneen ci ay dirigeant nag ñoom am nañu ko euh, yaqin ci ne lu jëm ci bile continent africain en tout cas euh, mën rek moom boppam ci wàllu ko euh, dundu te loole ngir mu mën a nekk ñu waxtaanee ko joyanti nit ci ay poñ en tout cas njiitalug Badma laata ñuy tàbbi fenn teg na ci kaw table bi lu toll ci euh, fukki milliards ci dollars euh, ci xaalis ngir mën a financer euh, agriculture africaine loole itam ci juróomi at yi nga xam ne mooy ñëw doonu cawlu Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye ñoo ñu fa teewloon Afrique mun na dundal njabootam li mooy conviction diituk réew Sénégal nekkit présent en existence bu Union africaine addu yu mu biral ca ba muy tijji sommet Dakar 2 bi l'Afrique ci taarix Afrique nekk continent buy wàllu yàlla ngir dund dem ba jamono di dox Afrique di wékku ci feneen lekk léegi nag jot na mbir yi ëlbatik ci ni nga xam ne noonu la ñu jot ay crise àgg na sële ba yoon am na yoonu Afrique bu am ay tolof tolof tënku ci mbay yu saxal ci lekk dund mu mel ni jamono yi dañu war a wàññi kàddu di amal ay jëf loolee kaka xamal di président bu commission bu union africaine. dans le temps africain actuel. dama am gëm-gëm ne suuf si fii ci Afrique mu am ay nit yu xarañ yu ko soxali jamono yi situation bi ci wàllu ko dund moo war a nekk nga nay ngirum ñu mën xeex eh, nu ñuy demale suñu bopp naka lañu ñu ne dañu libre te ba léegi eh, pour ñu lekk faaw ñu dugal suñuy yoxo ci ndabu keneen njiitu BAD di banque africaine de développement moom noppi na ngir dugal lu toll ci milliard ci dollar ngir daal di financer li nga xam ne mooy wàlluk mbay mi fii ci diwaanuk Afrique juróomi at yi di ñëw. In the next five years, with our from our board in direct support of the food and agriculture delivery cuts. sommet Dakar de tàmbali ay liggéeyam ca ay discours yu yéene mbébét lu toll ci fukk ak juróom ci ay njiiti réew boole ci juróom-ñaar fukk ci ay membarnement daal nañ teew fii ci Sénégal travaux yi war a am njeex ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier mi ngoog Haj Mansour fig moom boppam ci wàllug dund koppar am na ci solo lool waaye lan moo ñu teree décoller ba ci bu ñu xamee ne Afrique googe am na ay meññeef lu am solo yu ci mel ni kon euh, suuf ak itam lu jëm ci wàllu naaj ak ndox volonté politique bu koy firndeel lu njàmbaarte euh, bu fekkente ni bi euh, li nga am ak néew wàllu agriculture dooleeloo ko kantanaloo ko matériel li ñu koy séddalee doy waar suuf si li ci ëpp dañu koy xool ci wàllu kenn moom benn surface moom di ko exploiter moom donc mu nekk njëriñal boppam euh, mi nga xam ne moo fi nekkoon ñu koy jàpp di ko dundee nga ciy dund di ci jaay ñu néewalal la ko doole mbayum noor liy yàqu chaque année day xaw a tolloog daanaka li ñu ciy jariñoo Sénégal bëgg dund passé temps ak yeneen réew yu mel ni ki moom ci wàllu importé moo xam yëpp moo xam soble moo xam bom pomme de terre moo xam leneen ak leneen xalaatuñu ci am yaatu petite moyenne entreprise tey bu fekkee sa xel daf ci nekk boo ko créé ñu ngi lay teg ci impôt loo xam dafay poser problème ba finalement ñu bëri dootuñu sawar ci loolu noonu cest lu koy jamono toll ci wàllu transformation ci wàllu commercialisation ci wàllu conservation yooyu yëpp nag bu fekkee benn réew amu ko bu may yem dong ci wàllu productivité sa waaye loolu du am du am solo moo tax li yàqu chaque année ci pomme de terre Sénégal nga gis gerte ni mu fi amee solo mais chaque année pratiquement benn réew dong la ñuy bay gerte te tey tey ni ceeb amee doomi réew yi ba kuy importer sa xel dem foofu nga wuti ko fa cacao mel koo Côte d'Ivoire ak café mais gerte na mel Sénégal mais ni Sénégal amee chance mën a jariñoo gerte googu malheureusement exploité wu ko ba tax na gerte amatul benn valeur chinois yi ñëw nañu di buuxante ak ñi nekk fii ci réew mi parce que ñi nekk ci réew mi aussi taxawuñu bay comme ni mu jaadoo finalement baykat bi li muy gën a préféré mooy jaay ko bi nga xam ne dina ko fay njëg gu baax fii ak xamuñu valeur bi nekk ci wàllu mbay xeetal ndaw ñi ci xamal pour ngeen tekk ci mbay élevage lay doon day nekk secteur bu ñuy sàggane toujours luñ ci dugal ci ay milliers daanaka lépp dong lay doon Mohamed. lépp dong lay doon euh, mi ngi noonu Léopold Tamba mooy jafe-jafe bi Afrique euh, amee mën nañu dugal koppar gu bari waaye xam yoon wi ñu mën a jaar Afrique moom bopp boppam ci wàllu ko dund day doon lu jafe. yoon bi sax xam nañ ko mais c'est que def ay erreur yu bëri da ngay gis xale yu bëri ñu taxaw ci ci mbedd yi du ñu def amuñu benn occupation mais xale yooyu bu ñu leen jëloon di leen former dans sa amoon na fi centre boo xam ne ne mi ngi woon fii mais centre yooyu dañ fa yóbbu ay élèves yoo xam ne ne dañ leen jàngal naka la ñuy mënee bay ak naka la ñuy mun am gerte ak lenn loolu yëpp dafay important pour un pays parce que si xam ne ne ñoo yor doole gi mooy gone yi nga xam ne ne ñoo fi juddu doon ay ay ay muskalaf am doole mais ñooñu dañ leen di encadrer di leen bëli di leen joxis ay moyens yoo xam ne ne dinañ mun a mbay loolu parce que loolu daal mooy permettre que Sénégal tamit muy am lu ñuy wax souveraineté alimentaire c'est-à-dire que ngay consommer li nga xam ne moom ngay bay soo amee nag ñu doon quatorze mille bul xam ñaata kii la ñu am yoo xam ne ne ay jeunes yoo xam ne mun nañ leen tas fu nekk am nañu suuf am nañu ndox donc suñ leen génn ci yenn goute yi mais soo gisee tey jii ñuy importer ay ceeb c'est c'est vraiment désorable déshonorable parce que soo xoolee même en Casamance mais en période de de de pluie mm. gars yi dañuy tempe yi mais après saq yi day fees ak i ceeb duñ ko dem jëndi feneen donc il faudrait que ñu jéem a xoolaat ni ñuy def di euh, appuyer wu ci jeunesse bi encadrer leen ba pare pour mun a am li nga xam la ñuy wax souveraineté alimentaire. mi ngoog Léopold Tamba beneen ndaje ngi nii muy euh, euh, colloque international bi ñu fas yéene amal fii ci Ndakaaru ci ñetti fan jëm ci wàllu aménagement territoire ci édition bu njëkk yu dajale ay experts ak ay universitaires ñu mën a kon partage ak waxtaan ci lu jëm ci Euh, lu jëm ci wàllu kon euh, lu jëm ci wàllu aménagement du euh, territoire <laughs> ndaje boobee nag boole na bokk na ci ay collectivités territoriales urbaines yu ne ci Sénégal yu musul ak itam yu Afrique ubbite gi ni ki tey ci suba lañu ko amal ak Sow Abdoul Aziz Sow da baax xëy na daan ci dikk ci yeneen jotaayu xibaar ñu wax ci coow ñu nemmeeku ci neuf hectares wala juróom-ñeenti hectares ci forêt bi ñu ne forêt classée la Saly nga xam ne ne eh, askano fa yeewoo la soxal ak eh, SAPCO càp eh, janok way tasul xibaar yi ni ki tey ci ngoon collectif pour la défense des salis moom li mu sàkk mooy ñu dakkal ci daar daar gi liggéey yi nga xam ne ñu ngi ko fay amal public site nga xam ne jàpp nañu ne moo leen di dimbali ngir suñu wàlluk nokki foofee te SAPCO bëgg ko kon ak pare dañuy fay fekki sunu ndaw ba ñu fa toogal Aline Badara Sonko ci janoo bi ñu taskatu xibaar yi collectif bu ëmb intérêt pour la défense des salariés ñoom sab SAPCO lañ joxaam tuuma ndax ñoom dañoo jàpp nii toogalu fi benn yoon askan wi. ay kër lañ fay tabax te gis nañ koo xam ne mu ngay tabax te ci yoon lay liggéey loolu gën moom xam ne loolu mu def du yoon donc loolu ñun duñu nangu te duñ ko nangu ëllëg manoo ne jël dëkk bii di sali def ko nga xamante ne bii mooy ville verte bu di dagg li nga xamante ne moo war a tax loolu. eucalyptus bi dafa tax touristes yi di ñëw parce que climat local bi dafa climat bi nga xam ne da nga ciy mën dund bu baax a baax a baax ñun ñëpp ñu jóg trop c'est trop. ba tax na sax ñi sàkku ñu arrêté lépp li nga xamante ne travaux la ci soxal bii les forêts classées. ñi nga xamante ne tey ñooy ndaw sali duñ ko nangu loolu moom duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg parce que pont bii ñu ñi nga xamante ne dañoo nekk ci milieu touristique xam nañ ñu présenté si dëkk bi. en tout cas membre yi nga xamante ne ñoo ëmb collectif pour la défense des intérêts de Saly ñoom woote nañ ak marche pacifique samedi bi ngir autorité daal di leen gindi hectares yi nga xamante ne jamono ji moo jur coow li fii ci diwaanu Saly Portudal. Mansour ñu ne dàq ñu sax yóbbu ca yoon euh, SAPCO ndax fa mu bëgg daal di euh, euh, tabay xeetuk bâtiment arrangé wu leen ndax forêt classée la ñu ko tuddee te mu dimbali seen wàllu nokki. ni yenn promoteurs yi doxe sa pose problème SAPCO dafay yëngatu ci wàllu gestion contrôle ak di garantir sécurité ci wàllu nekkin ak lépp loo xam ne tënku na ci exploitation petite côte mais bu fekkee forêt classée bi nit ñi dese muy non seulement protéger dëkk ba ci wàllu rendement mais dafa yokk taaru dëkk ba xam nga ñoom dañu xamul mais même forêt classée arme la ci wàllu tourisme mm-hmm. mais bëgg bëgg yow def sa bopp benn promoteur espace bu nekk et ce qui est plus dangereux mooy dafa am ay benn benn nit xam dañ leen identité waale ci biir tourisme ba ñëpp xam leen mais mais bu ñu waxee sax da ngay tiit bu ñuy tagg SAPCO wala ñuy tagg li SAP di annoncer ay titre foncier waaye ku ne xam nga ni titre foncier bu ko SAPCO bëggee foofu yow parce que moom mooy contrôle lépp lu gestion suuf si foofu noonu donc loolu du problème problème bi mooy suuf si nañ ko fa bàyyi. lu dëkkaabul ñu dëkk fa lu dëkkaabul ñu ko ca la taxoon ñu bàyyi ko foo forêt classée charme la ci petite côte SAPCO xoolaat politique am na xoolaat doxalinam waxuma la xale yi nekk Saly mouvement bi mais képp ku nekk petite côte ci boppam laa la wax da nga war a taxaw ànd xale yi opposé wu lii SAPCO di def ak yeneen ñi nga xam dañu nekk ci biir lii SAPCO di def ñu xalaat ci am benn Bakar Fego di ko valider di ci ànd di ko tàccu ñoom ñëpp la ñuy dénoncé ñu leen benn par benn ñoom ñëpp la ñuy dénoncé parce que lii normalul sérieux wul nañ fa bàyyi foracé bi charme la ci dëkk ba mais yow duñ ko jël def ko comme Tamba après sam ko ñëpp bëgg ko pàccoo waa Saly après di taxawal loolu fan la tegee. forage la euh, autrement dit poumon vert noonu lañ ko tuddee Léopold Tamba est-ce que nag yenn jëf yi bu nu koy jëf jarul ñu di ko xoolaat. non jar nañu laat ko parce que comme nu ko Mansour waxee en fait dafay baax sax ci jaww ji parce très important que nit ñi ñuy am ay forêt classée forêt classée yi dañ ko war a mun a meññal sax mais waruñu mën a di jël di ko jox ay nit mais suuf ñi ñuy jàpp ne que ñun très souvent li may wax ne que on a beaucoup beaucoup beaucoup yoo xam ne ne ah, ñi ngi fii ci réew mi dinañu soxla bésoo bésu mais bu ñu jàpp ne que ñun ci génération bu ñu nekk nii rek comme suufa ngi di ko jàll xam ne ni il vient de l'extérieur ñu ñëw occuper nos propres territoires donc loolu moo ci doy waar parce que lenn moo ci mun a am lu ñuy wax la souveraineté dañu war a mun a wax la souveraineté terrienne mooy c'est-à-dire lépp luy teer dañ ko war a mun a gàddu protéger ko duñ ko distribuer comme nuñ koy joxe mais distribuer buñ koy def aussi de ça se fait de de de mal en pis donc ce qui fait aujourd'hui tey jii on a des problèmes même pour avoir des terres pour tabax mmh. parce que ce sont des qui appartiennent à tous les Sénégalais ak fu mu mënta nekk donc dañ ko war a mën a di xool suñ koy di ko joxe par parcimonie mais mënuñoo jóg rek di jël ay li nga xam ne ay expo xam ne yu mag a mag di ko jox ay nit ñu ciy jëriñoo génnee ci xaalis bu jeex ba pare yóbbu ko seeni dëkk xoolaat bu baax nañ woon mën a protéger surtout suñuy suuf bañ di ko caxat caxate Léopold tax ci jamono jooju ca Casamance négociation yi ma ngay wéy ngir ñu teggi loxo kii di wi di Barthélemy Diatta ñu tegoon loxo ci dimanche bi ñu génn euh, ca Santhiaba Mandiack ay éléments yu bokk ci Sésaratout Badja ñoo ko def ASP boobee nag Barthélemy Diatta dafa bokkoon ci ay liggéey communautaire ngir rek fexe euh, jàppale ñi bëgg ñëw ci seen gox boobule di Santhiaba Mandiack ci euh, liggéey gën a naatalaat dëkk ba mu mel ni euh, kon 1992 euh, ba léegi dëkk boobe euh, seen i ay borom dañu fa jugee njaam nag am na